SMS parce que yaa ko bind. koo message ne ko comme may sëy Ibou Ndim message ne ko Ibou may ma sambaat mu ne ma may naa la téléphone bi seede nañ seede la parce que mhm. confirmation bi mooy ku ko gis dina xam ni. lii bindu Ibou Ndim la mhm. numéro Ibou Ndim la. Mhm. seede la. mu ngi mel ni am na yoo dañ koy sib ci julli. kom ngay julli naan yox la. ku ne dina xam ni nga def kaay mooy ñëwal. demal mooy demal. Mm-hmm. Eh, na fi eh, balaa may réer foofu. gis nga dañ koy tere ci julli. waaw dañ ko sib. sama yaay day am na bu ci garaaw nag. sama yaay nag ah, am na ko xam ne da julli tisbaar ba pare rek kabbaar. Mm-hmm. di julli ba caag rek santir ceeb. Mm. ci gémmiñam mu def nii ba génne ko def nii gis nga loolu yokk nga julli. boo jullee ba sërmal da nga sujjóot ñaari ràkk. Mm-hmm. ndax lépp lu ñu mën a bind rek yokk na julli. ñi koy yëy na nga day yàq julli al aklu fi salaat yutilu salaat. Mm-hmm. lekk ci julli da yàq julli mooy nga am loo desaloon yooyu ko ba mu neex na nga jàllale ko mm-hmm. da yàq julli mm-hmm. parce que nit du julli di di lekk di si voilà ah waaw loolu teewlu amatu ci mais fii ñu taxaw léegi ñor na ma lool genre mooy bari na ñoo xam ni ay ay góor yu nekk seen soxna yu ci apartement yëguñu ni nekk nekkatuñ seen ay jabar njaaloo moo dox seen diggante parce que jigéen boo ko fasee ba muy ñetti yoon mënatoo koo jariñoo lu dul baax de zawji lu dul keneen takk ko te ki ko takk complicité du dox sa diggante ak moom comme ça ma bàyyi bàyyi naa tey nees ñëw ni Ibou Ndim man ak nees de tàggoo nañ te xam naa ni xale yu góor yi dañ ciy wax dama bëgg rek nga jàpp ci nga fexe ba convaincre ko jéem koo takk jaru sa nga koy doxaan hmm. mais boo ko takkee bu la neexee boo fanaanee ñëw divorcé leen nga xam ne bu daan jeexee dinaa ko mën a takkaat loolu l'islam nanguwu ko hmm. mais da ngay sëyi feneen parce que l'islam day bëgg yar ku góor ki yar ku jigéen ki hmm. da ngay dem sëyi feneen boo sëyee foofu nag mën naa neex nga jaaree fa toog boo xamul boo sentirul sa bopp itam ëllëg mën ngaa tas dajawaat ak nga dajaloon mm. yàlla fase la gën a bañ abxadu xalaal inda lay atalaax mais li tax fase di am jëkkër ak jabar bu ñu demee ba ku ne bëgg a yéene sa morom paaka mm. dem dem ba ñoom ñaar lu mat ñaari weer ci weer ku nekk woon sa morom ginnaaw ndaw si nangootul toog waa ji mu ngi def lu ko neex yàlla ne nag bu boobaa ka imsaakum bi maaruf ànd leen ci njëkk bu ngeen ko mënul aw tasrixum bi ixsaanin tàqalikoo leen ci rafetal mm. kenn ku nekk dem mais Sénégal rek mooy divorcé ak jabar ñu tourné nekk ay noonu Mm-hmm. mais normalement nit bu ngeen tàggoowee ànd la woon mais am na ko liggéeyoon seen TV. Mm-hmm. dem ba gis feneen daa xuloo buggaan dafa bàyyi rek bind lettre am dem dem démissionné. Mm-hmm. jigéen bu ngeen tàggoowee genre xuloo jaru ko ci diggante bi. yàlla moo ko dogaloon weddi na nekk sa sœur wala mu nekk sa càmmiñ kenn ku ne dem seeti keneen mbaax mën na ci am sax ba nga may ko njëkkee. mais Sénégal rek mooy am tas sëy mu doon guerre. kon ku fase jigéen ñetti yoon mënatoo koo jariñoo. parce que yaa ko wax sa gémmiñ bu demee nag ba sëy feneen ba jógee fa nag yow ku góor ki mën nga ko takkaat waaye tant que amaatul jëkkër amatoo droit hmm. wax léegi ni que euh, SMS seede la waaw mais ak jamono ni mu yàqoo léegi euh, bu amee ku jël sa téléphone par exemple nga nekk ak sa coro sa sa sa ak sa jabar sa gel fiir mu jël sa téléphone message sa jabar ne ko fase naa loolu moom lu mu mais waa ji waxu ko waa ji témoin bi mooy Mm-hmm. waa ji bind na message. jabaram bu fekkee moom moo ko bind. waaw kay bind na jabaram mm-hmm. message ni ko message bi kat euh, bu njëkk ba téléphone amul. Mm-hmm. góor ñi ne Europe bu ñu daan fase seen ay soxna lu ñu leen daan wax boobu téléphone yombul de. lu ñu daan def. naa la bind lettre. dañ koy bind lettre. yónnee ko. ñu ne ah Ibou Ndim de moo yónnee lettre bi. nee ñi dañ daan toog liir. Iboo ko bind boobu téléphone gaawul. Mhm. dañuy bindaat Ibou lettre bu dee Iboo ko bind postem da da ciy mhm. xam ne Iboo ko signé. Mhm. ko def bindaat ko lettre ni ko ndax fase wi yaa ko fase mag ñu yàqamtuwuñ dara parce que idda bi trois mois la. dañuy delloowaat lettre bi. bu ibi confirmé ni moom moo ko def nag ñu daal di moom xam ne ibu kat moo d'accord tul conseil boobu daal dina tas. ne ko di wàcc na la waaw. daal di bàyyi mais li wétoo nañu moytu góor ñi nañu bàyyi nañu nañu moytu di gaaw bàyyi hmm. jot ak sa jabar ñaari baat may naa la sa baat hmm. xolal boo ne may naa la sa baat rek l'islam coché hmm. na muy dëgg ngeen doxal 3 jours 4 jours nga meraat waxoon naa la ko waa léegi sax may naa la sa ñaari faste dog na ngeen dem 3 1 mois ak yooyu ah commencé te nga def sa yi nga doon def wax naa la ko nafi bi ci gën a garaaw sa jëkkër nga génn di dem mu ne la boo paasee buntu kër gi fasanaa la boo jéggi buntu kër gi fasana la. Mm. bon moo tax moo tax moo tax lax dara di tere ay maani talaax ngi ñëw fase. Mm-hmm. comme ça na fi bu may waxateeg yow nga nga nga téye sa téléphone fasanaa la. Mm-hmm. jàppal ni boo téye téléphone bi rek fase da taab bi na. Mm-hmm. moo tax ñuy tere waatal ngiñal passé. di di di bëgg a passé sa jabar. am fooku ko bëgg a jaar boo mhm. jegee fi fasanaa la mhm. boo demee ngénte diw fasanaa la boo bu ma la gisatee nga ànd ak diw fasanaa la mhm. saa yu ñu àndatee ñoom ñaar donte dañ la kaa nëbb sax yow téegoo ko jàppali fase ba tàbbi ñu doxal ay tesaan ñu topp ñu ne boo demee juma ak juma waaw imaam raw la rakka yi nan nga koy jullee deux rakka yi nan nga koy jullee imaam raw la ñaari rakka nan nga koy jullee ah boo ñëwee da ngay continuer fa mu yem ngay tam nga yeggaleeg moom boo demee ba sëlmal nga tulliwaat yeneen ñaari rakk ci sama xalaat. ajjuma. voilà wala imaam ajjuma ñaata rakk la du ñaar ajjuma ñaari rakk la ñu bari ñaari rakk la mais bu ñu ñëwee ajjuma ah. imaam raw leen xam nga ñaari rakk la ah. mais ñëw nga fekk imaam di taayee deuxième rakk pour sëlmal nga egsi waaw ànd ak imaam ci taaye bi boo jugee yow ñeenti rakk ngay julli hmm. Hmm. yow boo jugee mooy deux heures. Mm-hmm. deux heures mm-hmm. parce que ama amatoo aljuma ji imaam moo la waroon jiite ci ginnaawam nga waroon topp. Mm-hmm. ñu bari na xamuñu loolu. aljuma ñu bari bu ñu ñëwee imaam di waaj a sëlmal dañuy toog ànd ak moom ci taaya bu ñu jugee ñaar la ñuy julli. déedéet xam ne kañ ngay julli ñaar imaam rawee la benn rakka. deuxième rakka bi bi ngay ñëw rakka chaque jour mu ngi lay rawee ci rukon. imaam bu jàppee euh, ñaari omam. nga ñëw fekkee loolu yaa ngi ci ràkka bi mais bu bàyyee ba siggi ngay doog a egg si bi raw na la mm-hmm. boo ñëwee fekk ñaari rukon imaam yëpp raw la yow ñeenti ngay julli mm-hmm. waaye bu fekkee ni imaam benn ràkka la la rawee kon yow imaam ànd ngeen ñaar ngay yow boo ñëwee benn ràkka ngay doole muy sa ñaari ràkka nga am aljuma yi imaam bi comme yow mm-hmm. leer na leer na ay see booy julli tàkkusaan nga war a wax si suuf nga juum wax si kaw noo koy réparé. doo jigéen ñi tane nañ mais góor mooy def loo xam ne jigéen moom du mu sax ci kaw mm-hmm. Mm-hmm. mais nit day julli tàkkusaan buy julli tàkkusaan juum yenn saa yi dina daan liit koor na fi mu sonn bu wonul tara allahu akbar bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin waaw man tisbaar tàkkusaan la julli ma day dal ni mm-hmm. parce que da ngay kàbbaar rek kàbbaar yi fitna allahu akbar waaw bismillahi rahmani rahim waaw man tàkkusaan laa julli suuf laa war a wax parce que da ngay wax ak sa xel nga ne bismillahi rahmani asalaamaaleykum déedéet kenn du sëlmal seytaane booy sëlmal muy bëgg parce que day xam ni li ko gën a yéem mooy ki juum ci biir julli réparé waat julli ci biir julli te génn julli mm-hmm. mais am na ñoo xam ne bu ñu juumee rek pour ñoom asalaamaaleykum recommençaat mm-hmm. boo ko defee seytaane day bëgg xam ni kii xamut yàlla mm-hmm. booy julli tàkkusaan war a wax ci suuf nga juum wax ci kaw da ngay continuer julli ji waaye bu boobaa da ngaa yokk parce que wàññi nga waroon def mooy wax ci suuf mais dangaa wax ci kaw mais li nga waroon wax wax nga ko li nga waroon a wax mais da ko wax ci kaw kon yokk nga ci julli mhm. kon li ma wax sànq da ngay julli ba sëlmal sujootaat ñaari sujoot mhm. mooy baax xam baax da salaam sujootaat ñaari sujoot siggiwaat taaye doogay sëlmal mhm. yàlla doog lay réparel julli googu genre macha allah jërëjëf oustaz ñu ne Cheikhul Khadim ñaata at la dund mu laaj laaj Cheikhul Khadim ñaata at la dund 75 ans 75 hmm? ans merci Nafsatou ñaata at la ñaata at la Seydil Hadji Malick dund 66 ans 66 ans merci Ibou Ndim. maam Cheikh Omar ñaata at la dund. 70 ans sama maam la. dëgg la nag Fatou Dieye. maam Cheikh Omar Fouti wu Taal dëgg la. 70 ans. dëgg la 70 ans effectivement kan mooy taawu Seydina dëgg la dëgg la ku ko wax ci régie bi. Ah. régie foor na de. <laughs> régie xanaa waaw kooku ay daal bokk na cox tànga foor na de. Ah. mbaadu bi yaa ngi koy commencé naa ko de foor na de. nisan xaaral nga jaar ci jàngale. <laughs> nisan naan foor na de. <laughs> ñu ne jumaay yonent bi kan ak kan lañu fa denc. jumaay. jumaay yonent bi. Ah, kan ak kan mooy Médine kan lañu fa denc yonent bi mais ñuy partagé fa moom may leen xaalis na après hmm. ak commentaire yi ñoom trouvé wuñu de trouvé guñu kuñ fa denc nees nga ni yonent bi kan ak kan lañ fa denc nees sallallahu alayhi wa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak hmm. kan euh, Boubacar ah Aboubacar Saddiq mhm. Omar Omar Aboubacar Omar yonente bi Aboubacar Omar yonente bi lañ fa denc bërëbu yonente bi boo fa demee yonente bi moo fa tëdd mhm. ak Aboubacar ak Omar waaw euh, ah, Aïcha jëndoon na place bi moomoon na ko mhm. mais bi bi Omar di sukuraat dafa ni dem leen ngeen waxal ma Aïcha ndax may na ma mhm. ñu denc ma fi ñu denc baayam ak ak ak ak ak borom këram mu xam ni kii baayam la kii borom këram la sañu ko bañal Omar mu ne Omar may naa la sama place mm-hmm. mais moom bi mu feebaree ba war a wuyu ji boromam dafa ne bu leen ma fa denc bu fekkoon ni sama baay rek moo fa ne mm-hmm. ak sama borom kër rek mën ngeen ma faa denc waaye keneen rax na fa muy Omar te war naa mën a nekk sama borom kër kon génne leen mi ngeen dem suul ba fi ni suul jullit yi mm-hmm. looloo war a denc ñu fa Sayyidatuna Aïcha trouvé nag ñu ne ñaari malaaka ñaari malaaka yi laaj si biir suuf nu ñu tudd. munkiir ak nakiir munkiir ak nakiir ah? naka. nakiir ak munkiir noonu ak munkiir noonu. kala waa Rizé ñu dee. munkar hmm? munkar ak nakiir waaw lu